Ndiaye production journée Fallou Ndiaye bu boole si ay espoir boole si ay ndaanaan duñ ne grand combat duñ ne spécial ñaari demi final final la ndax ñu bëre grand combat bi ñiy bëre spécial bi yëpp ay naataangoo lañ ndax soo xoolee jeex jàmm bu avi ay naataangoo lañ boo Diop 2 ak Cité bu anti ay adversaire kon dañ naan demi final la final kon demi final la final amul grand combat amul spécial kon ñu ñëw seet si xale boo xam ne dafa def cinq combats cinq victoires premier combat am bari ñu ne matul mbër mu daan boobaak léegi déggut muñal muy xale boo xam ne ba bërki dem boo njaay digganteem ak armée tey ñu ñëw fekk si ko fii benn baraak dañ koy bàyyi mu nuyoo mbokk ay xaritam Diop de nuyu nañ nga idi fay nañ la ñu ngi sant yàlla julli si naa Mouhamed di sant suñu ñaari waajooru xam nga di sant waa yëmbal amoo lu dul yëmbal lii woote ñu wuy si la du bëri xaalis rafet jikko la ñii xëy na bu ma leen waroon leneen du ma wuy see nii mais yar teggin xam nga fu laak fay laa leen wan di nuyu sama nawle mbër yi nga xamante ni ñoo teew aw ma seen fay gis nga dompal sax ci sot la bokk di sant te waa waa Manko terrain bi ñuy defee open presse bi suñ terrain la xam nga di sant grand frère yi nga xamante ñoo jàpp si lamb ji ñëpp ñëpp ñëpp xam naa dinaa ci ñëw xam naa dinaa teew naa ñëpp di sant sama turandoo Boy Diop sama coach Mor Fall 205 mafia bi gis naa lépp nu ko taxawoo jiri 205 ñëpp waaw bi nga ñëw si loolu xale boo xam ne ku ko xam-xam ne day xeex day bëre muy Siteu bu anti ñu xool dernière sortie bu mujj li mu si wane est-ce que bi koy jël laaj nga seen mbokk à 100% non Siteu bu anti adversaire comme yeneen adversaire yi munul gën yeneen adversaire li ma bëreel munul leen gën a tàng ëpp leen doole dàqu leen bëre dama ko respecté nag comme yeneen adversaire yi ma passé jox naa ko cër trop mais bu suñu arbitre génnee suñu diggante du ma ko joxati cër. ndax fu mu fu mu si la bande fu mu taxaw rek soobee yàlla dinaa ko fekk. damaa dégg say la sa yow défenseur nga. man nag ku ma xam ne damay attaqué damay koñe damay gañe lépp lay bëree làmb ji bu laa yee attaqué damay attaqué gañe bu yee taxaw damay taxaw gañe su neexee yàlla suñu borom. nekk xale boo xam ne dafa jóg si làmb si ay dynamique nga toog si ay dynamique jour ba fa nga fas yéene indi. di woo waa yëmbal ndax ku ni làmb wax mobilisation ñun ay xale lañ heure bu ñëwee stade dooni ana Diop loolu kenn du ma gën a feeñ loolu maa ngi koy sant yàlla di sant waa yëmbal aw ma seen fay waa mafia José benn barak mafia ku ci daw daara ji 205 gi lamb ji nag lamb la waa Mango waa Mango waa tëli bu xonk di ma dëgg tëli bu xonk benn barak boo xalaat ay seen neex la xama waa salone xama laqale lamb ji xoolal amul loo xamante ni mobilisation bi grand combat bi sax du ma ko xool waa sanc bi waa waa refaan lawbe waa refaan lawbe maa leen woo si lamb ji baax a baax a a baax a baax ñu ñëw teewal ma incha allahu rabbi sa digganteeg si demande xalaat nañ si nga samp jaaga samp jaaga moom neex rek soo xoolee sa combat da ngay nga xam ne combat bi nga samp si jàng na moom nee ko am da xam ne day si de bu andi moom mooy bëgg rek si de bu andi bu xeexee ma door ko mu daanu su bëree ma daan ko si de bu andi téeméeri moroom maa ndax bëre maa ndax xeex te dinaa ko daan su neexee yàlla suñu borom moo doon Lamine Badji gaay noobi leen gaay noobi ñoom islam bi dafa mel ni excès de confiance da ciy bëre ndax yaa ngi sóoraale loolu ba pare dafa mel ni da ngay bëre ay supporters ndax yaa ngi sóoraale loolu. waaw loolu maa ngi koy sóoraale mais man c'est que keroog rek dama dégg benn journaliste bu wax loolu sama combat nee na damay bëre di foofu mais man du loolu. du loolu la xam na li may def dama koo mën billahi wallahi man su ma demee ba egg suuf sax gëm naa ne sama adversaire dama koy daan parce que foru bëre dama koo loolu man du bëre du ma bëre public ndax naa ne ci bëre public lu mu la a jural ak nit ñi lu ñuy waaj pare ku nekk génne xale yi sax dañuy dayee seen xaalis ndéggi pour dem stade loolu dafa métti kon man dama leen war jox cër le tout pour indi leen ndam bu neexee yàlla la deux borom bi na ma boo jë boo gisee da nga naan rëyu waaye du jël adversaire yoo xamante ne ñoo tolloog moom te bu ñëwee rek daf leen war boo jóob lan la ak sa public tey ji mbooloo mi ñu fi gis doy na waar loolu yëpp lan la sant yàlla la loolu xam nga li ma lay wax rek li ma lay wax léegi léegi rek war ñu wuy la rafet ci rek mais du bëri xaalis mhm. xëy na ma leen won nag moo ñu bàyyi seen yitee tey bisu ordinaire bisu liggéey la ñoom ñëpp ñu dagg ñëw seet si ma fekk si ma amadul dara dudul di leen sant di leen gërëm te na suuf si incha allahu rabi naa leen indil ndam su neexee yàlla suñu borom si problème adversaire yi nag man adversaire yi ma am adversaire ma doole téeméer junni yoon si jàppanteel wallaahi lancim su ma la doole ëppoo ma doole barke sëñ Saliou man maa la ëpp doole téeméer junni yoon mais mënuñu ko xam tànk nag rungum daje dañ la góor bala nga koo yeb daa fekk nga ñam ko te ñam ku ci ñam ku ma ci ñam bu génnee dinaa la Diop 2000 la ma foogoon amul man fol de confiance la damay naxe déglu déglu defe naa naa ñu déglu waay. yaa mi la ko te tey seet na ku dem stade boo kontaanee yàq seen boo meree yàq seen. yaa mën yaa bu doole yaa ngi ñaax mbooloo mi nga àndal non violence ne war nga ko def. Hmm. waaw soxna si yow dama boo xam neex. ñun amuñu loolu làmb ñun dañoo doon jàng mun jàng ba a dee bàyyi jàng ndax làmb xam nga kon ñun bu ñëwee ñi ñu topp nii xëy na ñun li nga wax nii lu am solo chaque jour ñun waxtaan ak ñoom da si am solo mais man fu ma toll rek maa ngi waxtaan ak ñoom ndax man lu mel noonu dal na ma sama deuxième combat mag building aj nañ ma un an téye sama reliquat léegi lu mel noonu man saa bu ma xëyee rek maa ngi ciy waxtaanal ñi nga xam ne ñooy ñoo ñooy topp jóg dëgg non à la violence soxlawuñu coow boo kontaanee géréel soo meree géréel lépp yàlla la yàlla moo yor ndam yàlla moo yor defet léegi nag li may li ma leen di wax mooy maanaam yar ak teggin ni mu la mayoon nag du la ko xañ di nga jóg dëgg ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñu koy topp rek di ko guddi di ko bëccëgal rek yar ak teggin saa su ne loolaa lay wax te bu yàlla yeneen tamit dinañ ci dinañ ci gën a taxaw su neexee yàlla suñu borom muy wàllum non à la violence bi. wér na. non question nag may woo. mooy maanaam dafa am sama xarit yoo xamante ne moo daan am gis. ñu taxaw fu ma gëstoo gis leen. xëy na jarul sax mooy tudd seen tur. mais ñoom xam nañ moon xam naa gis nga waa Campenal waa Rëbës ñooñu am ma seen fay. parce que alxuraan ñooñu si biir nag maa ngi du sama am jom moo ma fi bàyyi du ñoom seen ñàkk jom moo leen fa yóbbu. mais yàlla suñu borom nag lu mu def rek daa gën léegi nag maa ngi leen di ñaanal fu ñu nekk yàlla suñu borom jëlee leen fa bañ bañ faa dellu ci barke Seydina Mouhamed léegi nag maa ngi woo suñu mosala maire Babacar Ndaw encore une fois gisuñu ko mais grand Tafa Merona ñi ngi kontaan ak moom mais instant bii nii am na lu ñu teg suñu loxo mention spéciale ñu ngi koy sant di ko gërëm sama grand jour la nag aw ma fooyam lépp lu ma sol ci kaw ba suuf moo ko jënd yàlla dafa def nag instant bi mu dellu mais xelam yëpp moo ngi fii mais grand jour aw ma sa fooy barki Alxuraan lamb ji naa ko daan tuddee la drapeau bi barki Alxuraan karim aw ma sa fooy fi nga nekk nag liggéey rek moo la fa yóbbu waaw jàmm ak salaam la lay ñaanal saa su ne grand bu mu naar aw ma fooyam aw ma fooyam heure moo tourné gis ko aw ma fayam grand pafal menuiserie aw ma fayam sama naw nawle mbëri yi nga xamante ni ñoo teew fii su ma nee am na seen fay aw ma am aw ma seen fay cale DG ma fi yaa gétt ga ma fi yaa gétt ga fay waaw ñoom Fall ñoom Baara waaw ñoom Fall ñoom Baara Sall ñoom Ibra. grand Mor Mbaye grand Atou. aw ma seen fay waa waa waa Espagne Seydou Kanté Toldo. gannaaw kaddu gi aw ma seen fay dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax Pino borom italiano kooku aw ma fayam pàcc bu sama tooma sama seex gis naa nu mu may na ma xaalis bëri yi te mbër ma fam man kon aw ma fayam xam nga ñun benn lañ yëmbal lañ am ñun dañaa cinq ay bel fobeere aw ma fayam daara ji daara ji Baye Sall Baye Sall borom tataay aw ma fayam magu un magu deux Moussa Kalamu waa koñ bi nag maa ngi leen di jégalu bu baax a baax baax a baax waa koñ bi waa koñ bi amel na leen wax dëgg fa yàlla ndax chaque jour booy di simb dafa métti maa ngi leen di bu baax a baax a baax Kanté Kanté bu job 2 aw fooyam chaque jour da siy jàpp barki Alxuraan def ay vidéo xam nga may nga aw ma fooyam noonu aw ma seen fay ñëpp maa ngi gërëm baara lil waan baara lil waan bàcc mention spéciale ay xëmay xam nga ama seen ama seen fay grand ngaala ngaala sam waaji Issa Pouy yëmbal mara académie booy job numéro un booy job numéro un ama fayam barki sëñ Salim Mbacke ama fayam sama turóon no ama fayam yàlla moo am fay yàlla na ko yàlla fay Mor Fall suñu kësu fayam bel fobeere barki alxuraan xam nga Aline magu un magu deux ma yaa José bi yëpp yëmbal benn bara para deux sama mag sama xarit open presse boobu ba tey mi ngi si jàpp amet dal ma fooyam xam nga ay ñoom baaba ñoom bébé taala suñu waa igri suñu mbayaar yëpp nag maa leen di woo si lamb gis kaw na nga fay fuñ gis kaw na nga sama waay la jibi bamba xam nga jibi bamba ma fooyam tamit sama waay la barki sëñ Tuubaa Mbàkke ay ca bëggee jox cër wormaal OSTV mbokk yi internet yi ñu ngi leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay bu wér te ñëw fi seet si beneen espoir boo xam ne mooy Diop 2 mu def open press bu neex waaw bu xumb ñu ngi xaar nag Siteu bu anti bosam mbës ginnaaw bi ñu la nuyoo tey ñëw nañ sa gox mais macha allah bi ñëwee lañ gis xam naa ne promoteur bi dana am contacté wax dëgg yàlla xam naa ne lu raw lii ngeen nar a indi stade ñu lay jox nga nuyoo wax ak soppe yi. waaw salaamaaleykum mbokki internet yi mbokki si maa leen di nuyu bu baax di leen siyaar di siyaar sama gars yi Omar Saliou Jib Bamba maa leen di bëgg bu baax di leen siyaar di am kontaante bu baax na ci teewaay bi ngeen teew fii parce que tamit woote nit ñu ñëw wuy si la yombul quoi kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax tey jii xam nga ba lii amee. waaw aussi tamit xam nga di wax ne dañoo jëm ci bis boo xamante ne bis bu am solo la mu nekk bis xam ne daf ñu ñor bu baax a baax wax ci baaru làmb mën naa ne sax suñu waxee ne lii ñun mooy suñu premier combat waaw parce dafa am combat bi foo xamante ne ñun dañu fa toll te incha allahu rabi su combat bi jaaree la gars xam lan moo tax ñu ne combat bii nii mooy suñu premier combat waaw di sant bu baax a baax nag ñi nga xamante ni mbooloo bi nga xam ne ñoo nga fekk parce que Boy Diop xale bu ndaw la amaana sax xëy na tey jii li mu am nii xam nga jox xale cër jox ma cër tey jii xam nga moo tax mu woote ñëpp wuy si ko yaa ngi ay magam ay rakam xam nga ñoo nekk ci ginnaawam soutenir ko di ko ñaanal yàlla xam nga bis nga xamante ni moom la jëm suñu borom defal ni lu kawe njortam mag boo xamante ni mooy bëri grand combat ful bi bi dégagé fii nii est ce xaar jour combat bi ñun yëmbal lañ dëkk yëmbal ku ñu xam-xam ne ñun xëy na sax li ngeen gis nii tey ñëpp ñëwuñu parce que am na ñoo xamante ne nekkuñu fi dañoo génn comprendre nga mais nag xam nga ñi ñaan ñëpp ñi nga xamante tey ji ñoo teewoon fii ci bis bi jouru lamb ji ñu mu raw loolu te am nañ yaakaar bu baax a baax ne jouru lamb ji li ñëw fii lu ko ëpp mooy ñëw fële parce que lamb bi bis la bis boo xamante ne tey ji ñun position bi ñu teg ci lamb ji dañoo bëgg a wane suñu bopp ne maanaam ñun nekkowuñ foofu ñun mbëru grand comprendre. mais ñu war ñu xam ne ñun duñu ay nii nga ñu fekkee fii xam nga am na ba mu jeex te gisoo fi benn problème incha allah estaat noonu la fay demee yóbbu discipline dem suñu borom may ñu ndam ñu dox ndànk ñibbisiwaat incha allah. combat bi da di génn da ngeen dem seeti ji adversaire bi à domicile mm-hmm. est-ce que yéen a ngi pare côté yëpp bi moom dafa jege stade bi te moom nee balaa deux heures day duy stade bi. waaw ñun yàgg nañoo bëri à domicile lii du c'est la première fois ci ñun moom li ñu koy wax moom comme moom nee na moom moo ñuy dalal. barki Seydina Mohamed 11h bu tey bu ay supporter am ñëwut midi bu xasee rom bu ñëwee du am fu toog. non Cité bu anti moom day mobiliser moom. mat te moom ci stade bi la dëkk. Daniel Daniel combat na. la ñun grand combat bi laa grand combat bi suñu ñëwee ñoom laa la wax tuuti tuuti duñu am fuñ toog. non jeex jàmm moom nee midi moom ku mbër bu ñëwul midi boo ñëwee da toog xaar ci biti. waaw na xam boppam rek na xam boppam rek ñun waaj nañ lépp lépp wàññi nañ ko te lu ñu mën a def incha allah si jour bi pour ñu gën feesal stade dinañ ko def waaw. ñu ngi lay sant ñëpp nag ñu ngi woo ñëpp. santal sant ñëpp nag di ñëpp barke sëñ Touba ku mel ni xam nga sama gaay yi ñoom lin sama gaay yëpp mafia baa ngi nii nii nga leen gisee nekk nii ak Demba woote xam nga mu ñëw fu mu jugee dafa sore mu ngi jugee ba jàmm gën xam ay mbëri caaru baay paare yaa a xam Pape Gueye gi ñëpp maa ngi bëggee ñëpp di char ñëpp nag barke Serigne Touba di am contentement bu baax ci site yi nga xamante ne tey ji woo nañ leen ñëw parce que lii yombul booy bu ndaw déplacé woon ngeen ñëw kon lii nii xam nga sant la ak ngërëm di leen ñaanal xam nga fi ngeen teg loxo ngeen continuer incha allahu rabbi ay télé télé télé di ngeen ko bu soobee yàlla merci beaucoup Mbës kontaan nañ si yow Demba Baye Fall bi borom jàmm gën borom rivis lu waral teewaay doom ndaw moo xewle Mbës ak caatu Baye Paate xam nga loolu waral teewaay bi quoi. mais tey bi nga ñëwee fii lan nga yëg. non lu ma yëg moom waaw kontaan naa trop ndax lu ma gis moom macha allah quoi dal na xel. woy mbër bi moom lu ma gis moom ci moom dal na xel quoi vraiment gis naa lu lu garaaw ci moom quoi bilaay. état bi nga ko gisee nii yow ak ak état wu Siteu bu Anta yow amoo dara sa xel lu muy xel ñaar Siteu bu Anta est-ce gënul diis booy bi. non Siteu bu Anta moo gën a volumé mais diis moom gën diis booy bi waaw boo jóg ëpp ko doole taxul nga daan ko de ku la weddi laajal armée 2 noonu la demee nag. na ngeen waajee ak support ak mobilisation bi. non ñu ngi waaj lu garaaw xam nga ànd ak ay caatu baay paate yi mbës yeneen gaa yi ñu ànd ci xama di waaj lu garaaw bu jour ba suñu borom defal ñu ndam. waaw sant nañ la gërëm la Demba yow nekk as jàmm kenn laa président des supporters. yéen combat bii nii sa waay nee na stade stade bi la dëkk de midi mu feesal yéen est-ce que pare ngeen pour mobiliser. moom nee na vingt car la indi vingt lu ma mësul dégg ci combat spécial. Mhm, waaw loolu moom ay wax ay wax la rek. waaw ndax nit moom boo toogee caméra yi tiim la mi micro yi ñu tiimale la ko dafa naan da ngay wax rek di dem mm. waaye kuy feesal stade moom ñëpp xam nañ ko. mooy kan borom foo bu tuuroo soobi rek jàmm ji jeex. kooku mooy kan mooy Diop numéro 2. Mm. mujjee juddu sonal gars yi. ñëw jaaxal ñëpp nag waaw di ñaan yàlla yàlla def jàmm ñu fekkee ko ak tal ko waaw kenn bañ see am benn problème ñu dem si jàmm ñibbi si jàmm loolu la ñuy ñaan yàlla nag mais nag bu ñu woowee si leneen a ah, deretu yëmbal bi day yëngatu de. non non non foofu may bëgg a waxante yow mooy làmb tollatul moment yoo xamante ni ay affaire violence la wala affaire yoo xam da ngeen war a dem si stade yar ak teggin ngeen war a demee foofu comprendre nga yéen ay royuwaay ngeen war a doon mhm. war a nekk quoi. war ñoo nekk chaque jour ñu ne banlieue bi nii ak naa loolu dafa war a jeex daal pour man lan ngay ñaaxee xale yi nga xam ne ñoo jógee fii nii pour war a dem foofu Dakar parce que boo lamb ji à domicile waaw comme li leen daan wax à chaque fois rek ñun moom bi mooy suñu cinquième combat cinq victoire bii mooy sixième combat dem yàgg nañoo dem stade ñibbisi te du am benn problème duñ xeex duñ xuloo waaw ñun moom non à la violence lañ xam dem si jàmm ñibbisi si jàmm waaw di ñaan di ñaan ñëpp nag ñu yóbbaale loolu comme niñ ko daan defee dem jëli ko indi ko suñu mbër moom ku ko xam-xam ne du yàgg ak kenn waaw bu yàggee si moom la yàgg waa du yàggee si Diop 2. pare ngeen pour feesal stade. pare nañ pour lépp incha allahu rabi pour lépp pour lépp nag waxuma la pour feesal stade rek kese de pour lépp tuus mu neex bëre mu neex jël ndam indi ñibbi seeg moom. Aman Saliou man xam nga lu ma jaaxal si làmb ji ñiy bëre grand combat bi si buntu stade bi lañ dëkk kii bëre spécial si buntu stade bi la dëkk te jeex jàmm nee na midi moom ku fekkul nga ñëw da ngay <laughs> rek yàlla xam na ne ay wax la rek. mais benn côté Iba Mar bi sax mënuñu koo feesal. ñooñu dañuy ñooñu waaw dañuy mobiliser mais benn côté bi sax duñ ko mën a feesal. parce que xam nga lu tax man kay lu ma leen conseil mooy la benn côté bi sax feesal ñoom bu fekkee ñoom 9h ñëw ñu fanaan fa. fanaan esaat dañ bëgg daf ñu koy jaral. waaw dañ leen ko gën a bëgg. kontaan nañ ci jërëjëf ñu kontaan si yéen bu baax jërëjëf